mbokk yu tedd yi ginnaaw bu nu tàmbulee ci turu sunu borom tabaraka wa sant ko julli ci yonentam bu tedd bi aki i saxaabaam ak ay ñoñam ak mbooleem ku jaar ci seenu yoon ba ila yawmi diin ñoo ngi leen di nuyu nuyoob lislaam boobu ñu dileen leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi di jiital ci nuyo bi ak ziyaara bi ak ñaan yi alxalifa al cheikh muhammadul muntaqa ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu dolli ko ak wér te may ko kàttan guddal aw fanam lool ba sémb yi nga xam ne sémbal na ko lislaam yépp mu mottali ko ba naalaat yeneen sémb te lépp ñu teewe ko te ànd ko ak moom di ñaanal it mboolem kilifay diine yi nga xam ne dañoo jiite njabootu diine te nekk ci seen kanam ginnaaw loolu nag sunu waxtaanu tey ñoo ngi ko jëme ci li nga xam ne moo dox diggante waajur ak doomam ci ay xàq muy war-war yi nga xam ne si ne moo war ci seen diggante muy ay droit ak ay devoir kon aq yi war doom ci waajur waaye ak aq yi nga xam ne si ne moo war waajur ci doom lu gën a bari nag li ñu miin di ko waxtaane mooy aqi waajur moo gën a yaatu luñ koy waxtaane lool te alquran wax ci lu bari waaye noonu it la waxe nag aqi doom aqi waajur ci doom waaye bala ñuy tudd aq yi nga xam ne siine moom la waajur ameel doomam njëkk ñuy tudd ak yi nga xam ne si ne moom la doom ameel waajuram dañuy ñëw ci moom doom moomu ak am soloom agit it yittewu gi mu yittewu yitteel lislaam ak am solo gi sàkku ko niñ ko war a sakkoo ak yoon wi ñuy jaar ngir am doom waaye kan mooy doom mbokk yi doom muy njaboot muy njëmbatu dund dundu nit ku ne saa yoo jëmbatee dara am nga yéene ak bëgg-bëgg loola sax màgg am njariñ dundug doomu aadama nag doom njëmbatam la njëmbat la ci moom doom mooy kottiteeful mébét xutuuful amal nit ku saxal dara am na yéene bu màggee loola mu am njariñ mu watt ca dara nit ku ne yaa ngi mébét ci sa dund yàlla jox la njaboot kon mébét moomu ngay mébét bu la ko yàlla joxe mel nañ ne la nga jëmbatoon nga ko kon doom mooy xutuful amal waaye doom mooy mbégte doom bushra la borom bi tabaraka wa taala nee na ya zakariya inna nubashiruka bi xulaamin ismuhu yaxya kon doom bushra waaye doom mooy quratul ayn quratul ayn xol bu sedd moy doom rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama kon doom mooy xol bu sedd ci waajur doom mooy cofeel doom mooy yërmande doom mooy mawadda mooy arrahma ndax borom bi nee na wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa rahma ak rahma boobu wax nañu ne mooy doom doom mooy mahabba mooy mahabba moo tax sopp ko ak jaamu yàlla la bëgg doom ak am yërmaande ci moom ak ñeewante gi loolu ak jaamu yàlla la def doom ci xol loolu ak jaamu yàlla la ndax doom yi njaboot ñoom ñooy soppey yàlla bëgg gi waajur di bëgg doom muy ndey walla baay loolu ak bëgg yàlla la ak bëgg yàlla la borom bi nee na wa alqaytu alayka mahabbatan minni ndax fii waajur muy baay walla ndey di bëgg li muy bëgg ci xolam mooy yàlla bëgg gi muy bëgg yàlla ci xolam foofu la doom nekk kon bëgg doom bëgg yàlla la waaye nag kon lu am njariñ la moom doom waaye ndax doom moomu mbokk yi dañ koy jënd déedéet ndax doom des koy luye déedéet ndax doom dañ koy àbbu déedéet waaye doom daal ak may la mawhibatun min indillahi tabaraka wa taala doom may la goo xam ne si daa am ku koy maye ki koy maye mooy ki ko am moom dong te man koo maye te am sañ-sañu maye ko kooku moo koy maye léegi-léegi diggante ñaar yooyu dencante muy waajur yaay ak baay di naqari ngir lan doom dafa amut mu mel ne kenn ci ñoom day sababu ci ñàkk amuk doom déedéet daa am ku koy maye te mayeegu leen ko borom bi moo ne lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu ma yashaa yahabu liman yashaau inaasa wa yahabu liman yashaau dhukur aw yuzawijuhum dhukuranan wa inaasa wa yajcalu man yashaau aqima innahu alimun qadir borom bi nee na man maay buur man maa moom asamaan ak suuf may buur bi am kattan di may ku neex doom mu doon ku jigéen doom bu jigéen man may may ku neex ay doom doom bu góor mu am doom yu góor rek te du am jigéen waa mu am doom yu jigéen rek te du am góor waaye man may may ku ma neex boole ay doom yu góor ak doom yu jigéen may ko man may seet ki ma soob ma def ko mu doon ku jurmeel du am dara lu tax alim la qadir la looloo tax mu man loolu keneen ku amut ñaari melo yooyu lottu nga ci def loolu mu wax bu ko defee kookuy maye nag war warub jaam mooy mu dox ci yoon yi nga xam ne ci lay amee doom doom yoon yi nga xam ne ci lay amee may googu yàlla ne man maa koy maye te mooy muy taxaw ci kanam buur bu màgg boobu di mayekat boobu al malikil wahab ndax ñaar yooyu la boole waaye ku baax la ndax lu tax mu tudd noonu jël tur woowu joxe ko kon ku mayekat la lu mu bëgg ku ko ñaan noonu nga xam ne noonu la ko anbiya yi doon defe aarifuuna billahi yi doon ko defe nit ñu baax ñëpp doon ko defe mooy di ñaan seen borom tabaraka wa taala mu may leen njaboot Zakariya bi mu ñëwee ci kanam boromam njàmbat ay njàmbatam ba eggal da ca teg ñaan wa inni xiftu lmawaaliya min warai wa kaanat imraati aaqira mu mel ne kon dafa mel ne yëg na ne daal am na lu mu bëgg waaye daa mel ne daa jomb ndax ki mu tudd ci marxala boobu la toll muy soxnaam daa mel ne mënul am li mu bëgg waaye na jàmbat ci ki mat a jàmbat moo tax mu teg ko ca ne ko fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya daal koy ñaan ne borom bi tabaraka wa taala maa ngi lay ñaan nga may ma njaboot kuma ma wuutu koo xam ne daf may donn waaye donn it alu yaqub naka noonu zakariya delluwaat ñaanaat boromam ne ko rabbi la tadarni farda wa anta xayrul waarisiin bul ma def ma wéet ma nekk fi ba jóge fi dem te duma fi ba dara yow borom bi nga xam ne ci ne yaay ngën ji donn lépp lu ñuy donn ndax mbokk yi wéet dafa metti dundu ba dem te ba woo dara dafa metti léeg-léegi dunduk nit mel ne lu gàtt te gàttul ndax dafa am ñum fi bàyyi la mu nekkoon li muy am am solo waaye aw fanam guddut waaye taxaw nañ ca taxawaay boo xam ne kenn duutu ko fàtteeti léegi-léegi dunduk nit gudd lool waaye mel ne dafa gàtt ndax dafa bayiwul dara kon nag boole dund gu gàtt te bawoo fa dara moo gën a tee metti lépp lu ngeen gis mu des fi rekk ñu di ko tudd ndonoo ko waral mooy daa am ñu ñu fi ba tax ñu doxal loola yónnente yàlla ibrahim alayhi salaam dafa ñaanoon borom bi ginnaaw bi ko yàlla waxee tabaraka wa taala ne ko inni jaa'iluka linnaasi imaama da caa teg qaala wa min zurriyati borom bi ne ko qaala laa yanaalu ahdiya zalimin dinaa la def nga nekk imam nekk njiit ci umma bi ibrahima ñaan ngir mën a ñaan ñoom dañ doon fàggu ñaan njaboot gi garante bi ko yàlla yi defal mu defal leen ko wa min durriyati waaye yàlla ne ko dinaa la ko may yow li ma la may waaye duma ko garanteel sa njaboot ndax lu tax muahada bi dox diggante yàlla ak ñoom da caa am ñooñ duñ ko sàmm ñàkk sàmm goo tax yàlla du garante imaama googu di sax ci ñoom dana am ñu mu nekk ca ñoom waaye du ñëpp moo tax mu ne ko du ma la garanteel loolu doonte am na ñoo xam ne si loola ñëw na ca ñoom ndax bari na ci ay sëtam ñoo xam ne weneen yoon lañu mujj jaar moom Ibrahim waaye ñaan doom it bokk na ci nga di ko ñaan ni nga bëgg mu mel ni doom ji nga bëgg ndax bu ko boo ko amee te mooy da doom joo xam dafay nekk saalix doom ju baax buñ ko waxee rek as saalix salaaxiya moom lépp a ngi ci biir boo ko amee rek lépp jàkk waaye di ñaan rek xir xir xir ci bëgg doom rek tax ngay ñaan te doo xool anam gi ngay ñaanee loolu dalutoon anbiya yi ak nit yàlla yi ñoom dañ doon mën a ñaan lool ci ni ñuy fàggoo njaboot ndax dañuy ñaan ku mat a maye tam ku mën a maye lool te jotal ak mayeem te tëlewu ko moo tax Zakariya bi muy ñaan daf ne habli min ladunka durriyatan tayyiba doom yu baax yu teey yu sell la ne ko innaka samiu duaa ndax yow dara ump la xam nga li may ñaan waaye ba ko borom bi yabaleen yabaleen ndawam ñu di ko indil may ga fekk ko ci jaamukaayu yàllaam wa huwa yusalli fi lmihrab dañ ne ko yow Zakariya anna allaha yubassiruka bi yaxya doom ju tudd yaxya daal di tudd critères yi doom jooju am mooy mu bëggoon musaddiqan bi kalimatin min allah wa sayyidan wa xasuuran wa nabian min alsalihin dajale yooyu mu bëggoon yépp jox ko nu kawe njortam kon mën a ñaan am na solo ndax am doom ta nekkul saalix daanaka taxul ñu ñu war a ñaan njaboot ndax ak defaru dafa am solo ndax noox ba mu waxee boromam rabbi inabni min ahli wa inna waadaka alxaq wa anta ahkamu alxaakimin boole doomam jooju ci njabootam bëgg mucc ñëw ba alkande di ñëwee di tàbb ci ñoom mu bëgg mu mucc borom bi da ko caa tegal ne ko yaa nuux innahu laysa min ahlik lu tax innahu amalun xayru saalix bokkut ci njaboot sa njaboot ndax fi mu jaar ak fi nga jaar du benn kon moo tax mucc mënul am ci moom fokk lii dal ña ànd ak ñi mel ni mel ba may ñëw di indi bugal fokk mu ànd dal ci moom kon ñaan doom ju baax am na solo mu li ngeen gis lépp mu des fi ci lu baax daa am ñu ko ñaan moo tax yonent bi sallallahu alayhi moom ci boppam ak ñaan la moom ak ñaan la ana da'watu abi ibrahim maamam ibrahim moo ñaanoon sët bu mel noonu moo tax bi yàllay tànn nubuwa nangu ñaanuk ibrahima moom boole ci yonente bi sallallahu alayhi wa nangul ko ñaan googu cheikhul xadim radiallahu anhu moom ci boppam ak ñaan la kawteef yeeg lu rëy yeeg li ñu ko yéem yépp ak fi mu egg ci boromam daa am ñu ko faggul daa am ñu ko faggul ba mu ñëw jël cër bi mat ko sëkk am na maam joo xam ne jaar-jaaram lu yéeme la moo tax mënul woona a ñàkk mu am ku mel ne moom muy maharam barkeel tax mu dund juróom benn fukki at doora tax samp kër dund juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent yàlla bàyyil ko fi njaboot gu mel ne gi mu am kon kooku yàgg na fi lool yàggam googu ñaan gu ko yàlla nangul moo tax yàggam gi nekk fi ba léegi te jógu fi moo tax cheikh Mouhamadul Fadal daana wax ne maharam mooy fajar yi sëriñ bi ab jant munul fenk te amul fajar kon lu am solo la fàggu naka noonu noonu la gaañu baax ñi doon ñaane ñoom itam ni ko yonente yi doon defe moom sëriñ bi moom itam cig mën a fàggoom looloo tax yàlla defal ko li mu de li ko defal ndax daf doon ñaan moom itam ndono na ko Zakaria doon ñaane Ibrahima doon ko ñaane ñeneen doon ko ñaane noonu la ko doon ñaane moom itam li ngeen fi gis lépp li muy rëy rëy bu fekkoonte ne ci jëmmam jooju la yamoon yaakaar naa tey bu muy barab bii tey duñ fi taxaw kon ñaan gu ko yàlla nangul te mu fàggu ko moo law tey ba jur lii zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu zurriya tayyiba yàlla defal na ko ko wa hab lana zurriyatan tudiimu al amala saaliha ya qadiimu ay sët ay njaboot yu baax yoo xam ne dañuy sax jëf ju baax la ñuy saxal kon yàlla nangul na ko kon mbokk yi doom mu am solo moom njaboot mu am solo moom dañ koy fàggu dañ koy sàkku ci ki ko mat a sàkkoo léegi nag bi ñu ko sàkkoo ba mu ñëw yàlla jox la ko dafa am taxawaay yoo xam ne si ne ca ngay taxaw yàlla nangul la sa ñaan waaye doo ñaan ba yàlla jox la rek nga bàyyi noonu bu moytuwut li nga ñaan mën naa bañ a am njariñ mën naa bañ a barkeel léegi ñun ñëpp xam nañu ne baay doom ameel na ko ay xaq loolu lu siiw la lu yaatu la ñu di ko waxtaane ay ayat qur'aane yu bari wàcc ci ay ahadis yu bari wàcc ci waaye ñu bari nag xamuñu nag àq yi nga xam ne si doom moom la am moom ci waajuram mu war ko koo defal loolu moo tax ñuy gis ñu bari am càggante lool ci taxawu seen njaboot bàyyi leen rek du ñu faale dara du ñu xool seeni taxawaay du ñu xeel seenu dund du ñu xool seenu àndandoo dara la war ca ñoom ci ay matukaay yi leen yàlla sant duñu ko def ndax lu tax dañoo réere ne ñoom ndekete ndekete ameel nañu seeni doom ay xaq ñu ci bëri seeni aqi bopp rek la ñuy laaj ci kanam seeni njaboot di jàmbat léegi-léegi ñu dem ci ñi nga xam ne si ne ay nit yi diine lañ sama doom daf maa def nii sama doom daf maa def na di jàmbat rek waaye du ñu tudd li ñu def doom ñoom te lu mat a am lu am solo la lu mat a xam la ndax aq bu ne yuqaabiluhu waajib waajib bu ne yuqaabiluhu xaq devoir bu ne dafa droit bu ne dafa nekk ci kanam devoir nit ki day def war-waram door a laaj ay xaqam waaye bu say àq matut bu say war-war matut boo laajee say xaq laaj nga lu matu la laaj bu ñu dikkee ci alquran ñu fekk sunu borom di wax àqi waajur lu baree bari la ko tudd danañu ci ñëw ndax ñaar yooyu ñoo ànd waaye bii dafa jiitu wa qada rabbuka alla taabudu illa iyaahu wa bilwalidayni muy ay war-war yu bari yoo xam ne si ne borom bi mi ngi koy tudd ci aaya boobu ba mu jeex di wax ne doom noonu la ko sant mu taxaw ko ci wetu waajuram loolu la warlonte ak moom mu def ko ci waaru waaye ci jëmmi aaya boobu waajur moom itam li ko war ci doom foofu la nekk ndax ba muy daane def ko wax ne wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxiira dafa wax doom del ñaanal say waajur di wax yàlla yàl na nga leen yërëm waaye ci naka ni ñu ma yare woon ba ma doon mag nuñ ko yare woon kon tarbiya bi defar gi ci waajur wi la njëkk bu ko matalee ba doom doon mag taxaw ci taxawaayam ba mu taxawoon moom waajur ci la ko war di mën a taxaw moom itam waaye bu taxawaay boobu amut du ko mën a taxawee kon foofu moo jiitu moo tax ci biir aaya bi ci la ak ki doom dugg kon aqi doom moo jiitu aqi waajur li war waajur ci doom laata muy laaj ay xaqam mooy mu yar ko ba muccal ko ci sawara waaye muccal boppam ci sawara xett li doomam ci sawara xett li boppam ci sawara loolu mooy aq yi nga xam si ne moom la waajur war a def ci doom ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara alayha malaikatun gilaasun shidaad yéen ñi gëm yàlla yéen julit ñi fegal leen aar leen seen njaboot ci sawara daal di melal sawara soosu sawara woo xam ne dafa tàng jër sawara woo xam ne la doon am mattam mooy nit ñi ak ay xeer ñooy mattum sawara moom mu jox ko ay malaayika yu ñàkk yërmaande te tar lool na ngeen fegal seeni doom seen bopp ak seen njaboot képp koo xam ne si ne responsabilité ci sa si seen ron la nekk rek loola daf lay war ci moom mooy nga yar ko ba mu mucc ci lool kon ndekete waajur wi balaa muy laaj moom daa war a defar doomam ba noppi ndax mu muccal doomam ci loolu ci lay mën a mucce moom waaye bu muccagul mu doomam muccagul ndax xam ne ak lu mu mën a def moom dese na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne rahima allahu alwalid aana waladahu ala birri yal na yàlla yërëm waajur woo xam ne dimbule na doomam ci yar ko ba def ci moom li mat a def ci moom kooku lañ ñaanal kon àq yi yu yu jaxasoo la te mënu teqalikoo te mi ngi tàmbalee ci àqi soxna ci borom këram ak àqi borom kër ci soxnaam àqi doom ci do ci waajuram ak àqi waajur ci doomam ñeent yooyu dañoo jaxasoo amul kenn ci nun koo xam ne mucc na ci yooyu mu am ca lu ko ca war lu ko ci borom bi sant tabaraka wa taala mu war koo def benn mënu cee dem bàyyi morom ci dañoo dëkkër la ñoom ñëpp bu ko nit ki joxee war-war yooyu aw yoonam wi jëm ci yàlla day daal di jàppandi lool yomb bu fekkee nag ak gàttañ lu daa am wala ak jalgati wala juuyoo ak ñàkk def ni ni ko ko boromam sante wala mu def ko ba noppi ñaa defin wu ñaaw wu rafetut loolu dana nekk kiiraay liy dox diggante jaam bi ak diggante boromam yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne an al insana qad yastaxiqu nnaara yowma alqiyaama fa yaqifu bayna yaday illahi taala wa yaqul ya rabbi laa adxulu naara xatta udxila abi qabli nee na nit ki dana dikk ci boromam ëllëg ci kanam borom bi tabaraka wa taala ñu waajal ko ba sawara yay ci moom mu war a dem sawara wala yaasu mu taxaw na yow sama boroom man de duma ma dugg ci sawara bi duma ma dugg sawara lu dul ne dañoo dugal sama waajur ba noppi la ko waral mooy ñàkk matal ay xaq ndax moom la ko dugal sawara waajuram la muy qu anfusakum wa ahlikum naara jooju mu waxoon ku ko def rek yaakaar naa sa njaboot dana mucc ci sawara te bu muccee nga mucc naka noonu noonu la Omar ibnul Xataab radiyallahu woon ci diggante benn waay ak doomam ndax waajur wi dafa ñëw ci amirul muminin radiallahu anhu ne ko yaa amira al muminin fa inna waladi yaququni yow amirul muminin sama doom day daf may ñàkke wor ma yatu topp wala mbalaanum topp mi doxoon sama diggante ak moom xotti na ko mbalaanum yërmande mi doxoon sama diggante ak moom xotti na ko mbalaanu cofeel mi doxoon sama diggante ak moom xotti na ko mooy joxuma sama benn xaq ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu muslu ci yàlla musal ma ci may dund ci jamono joo xam ne doom yi dañuy dog ak xotti war may seeni waajur daldi di tàng fe saasa rek mu woolu ne nañ ko indil xale boobu bi ñëwee rek mu daldi dal ci kawam waa xaq yaa hada alxaq kayfa tawacatka nafsuka yatan billahi an taxuqa walidak noo mën a toppee sa sa sa bakkan bam xirta ngay xotti war may say waajur daal tàng ci kawam doom jooju daldi ne ko la taajal ya amir al muminin min rislika bul ma gaawee ndànkal ma yow amirul muminin man de xam naa ne doom ameel na waajur ay xaq ameel na waajur ay xaq waaye dama doon laaj ndax waajur moom amel na doom ay xaq amir muminina ne ko a xakay bala waajur ameel na doomam ay xaq mu ne ko dama doon sàkku nga tuddal ma lan mooy àqi doom ci waajuram mu ne ko àqi doom ci waajuram ba ca njëkk mooy mu tànnal ko ndey ju baax an yaxtaara al umma alsaaliha wutal ko yaay ju baax fi la tàmbulee àqi doom ak waajur bu ñaareel ba mu rafetal aw turam an tuxsina isma tur wi koy tudde na doon tur wu rafet bu ñetteel ba mu yar ko yar bu rafet ci jàngal ko téere bi yàlla bi xamal ko diine lislaam bu ñeenteel ba mooy mu dencal ko saa yu xamee ne egg na ci kàllafe ci mata denc doom ji tontu amirul muminin ne ko yaa amiral muminin anna ayan min al arbaati min xuquqi al abnaai al aba lam yaqum biha shay'a yow amirul muminin ñeenti àq yii nga tudd yépp ne baay ameel na ko doom de sama waajur wi taxawul ci benn ci yooyu defaluma ko bu dee sama ndey tànnaluma ko ku ñàkk solo la koo xam ne si ne tekki wut lu bari kaanat zinziyatun li majusi ñoo ko bu dee sama tur nekk fa amal ismu fa sammaani joraan joraan wala joal tur wi ma tudde mooy gunóor boobu ñuy wax mbirangaan nga xam ne moom daa iman yam si min wara il adira waxtu wu nekk mi ngi dox ci ginnaaw ay dem àll rek ci la sëgg gunóor boobu la ma tudde tur woowu la ma tudde bu dee man ci sama jëmmi bopp nag lim ma def mooy boyal ma rek ma topp ci xar yeeg bëy yi ak giléem yi doon bàyyi ma comme ñoom bi ko waxee amirul mu'minin dal di mer gestu waajur wi joxoñ ko ne ko way xaq yow dal yaa torox yaa ñàkk solo ajita tasku uquqa al walad innaka aqaqta waladak qabla an yuaq qabla an yaaq wa asata ilayhi qabla an yusia ilayk fa anta al aana taxsudu ma zaraata nee ko yow naka ngay ñëwee di jàmbat dog gu sa doom dog xotti say worma ñàkk laa jox say àq te yow yaa njëkk a xotti wormay sa doom yaa njëkk a ñaawal ci ak wàllam laata muy ñaawal jëm ci yow waaye léegi nag gis nga ko li nga bayoon góob nga ko loolu la ko wax li nga bayoon sa ngóob yi ta ngi nii kon résultat neenal warteefu yàlla wi mu ko gàll loolu lay résultat bi di jur mooy am lu la neexul rek te léeg-léegi muy am waxtu wu nekk ñuy gis lu mel noonu bari waana lu nit di jàmbat wala mu di ko joytu benn mu ñeme koo wax wala ñemewu koo wax denc ko ci xolam te fekk moom moo jëmbat loolu mu meññi mu góob ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi ku judd ku ne bi ngay ñëw ci fitra nga juddoo da nga set wecc taqoo dara doon ku sell noonu nga jógee ci sa boroom noo mel rek sa ñaari waajur la ñoo lay def nga wedd yàlla dib yahud mbaa nga dim nasran mbaa nga jib majusi ku gëmul dara wala ak melo woo mel boo gëmee yàlla te say jikko rafetut it ñoom la kon waajur am na ay responsabilité bu baax genn waaye ngi nii bi muy doon tu tànk ñàkk guñ ko ñàkk a tànnal waajur tax mu in mu am mu def inxiraaf mooy dérapage di def def lu ko neex wàcc aw yoon ci ak mooy aka toggoo ay irtikab ay ay jaraim ay ay kirim yaayam di ko ci encouragé ndax doom lu mu nekk te juróom néewul déet rek na xam ne ki koy ñi koy tas ca loolu la nit bu waree wax déet day wax déet waaye ñàkka wax déet loolu ci encouragement la bokk waaye muy dox ci loolu ba mag ñëw mu màgg ci woowu melo ba bis mu def benn jarima mooy benn crime boo xam ne dañ koo war a àtte war ko rey buñ ko indee ba war ko idaam war ko àtte war ko rey mu ko ne dafa bëgg ñu indil ko waajuram def ko soxla ñu ne déedéet dañ ko indi ñu ne ah kay nañ ko ko indil ñu indil ko waajur wi mu ñëw taxaw muy yaayam bi mu dikkee mu ne ko dama bëggoon nga tàllal sa làmmiñ ma foon ko balaa ñu oy rey yaay ji tàllal ko làmmiñam mu sex làmmiñ wi matt ko ba dagg ko daldi ne ko لو لم يكن هذا اللسان مصجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي إهمال تربية البنين جناية عادت على الآباء بالويلات lammiñ wi suru toon ne moo ma doon encouragé di ma ci li ma nekk jàjjiwu ma ma dellu ginnaaw du ma ñàkk sama dund tey ci anam gi ñàkk a yar njaboot négliger yar boobu kirim la moo tax bu toroxtaange dikkee ak musiba mi dellu ci waajur yi loolu la wax waajuram kon waajuram moo ko teg loola moo taxit bi mu demee ba faatu di ñëw ñu di ko atte foofa la mujje ak moom kon kon xam naa dañuy yemale foofu kàddu gi euh, beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci jamono ji nga xam ni jëfandikoo wàllu xarala yu yees yi ci suñuy dëkkuwaay ñépp ko yittewoo digital store si la ñëw ngir noppal leen marque yu mag yi ngeen di bëgg ci wàllum électroménager ak ci wàllum informatique yépp mën ngeen ko fekk ci suñu showroom yi nekk Bourguiba ak ci Soumbédioune ci corniche bi digital store bépp produit bu mu la jaay am na garantie itamit am nañ benn service après vente bu farlu ngir dab seeni bànneex yéen suñuy client digital store lu la jaay rek danañ la ko livrer ba fa nga a neex mooy ëpp ko am nañ pexe ak suñuy partenaires yi di banque atlantique wala Cofina ngir ngeen fay ko ci ay pàcc yu bari moo xam muy congélateur réfrigérateur split ordinateur ba ci téléphone portable jaar leen ci suñu boutique rek seeni aajo daal di faj commandé leen en ligne ci www point digital stores point sn ñu andil leen ko fi ngeen nekk digital store nekk ne itamit ci réseaux sociaux yi moo xam muy Facebook LinkedIn wala Instagram. avec digital stores améliorez votre quotidien.